waaye noonu rek ceeb bi nag man maa ko jox waaw muy ay ndimbal yi ñu doon def ci weeru koor gi waaw ah, kër gu ci nekk am saaku ceeb waaw ma taseeg moom waaw moom mu ne mën naa yenul boppam am na sax ni ma koy indil waaw waaw waaw ma ne ko nañ dem ñu ànd ndeysaan ndeysaan ndeysaan sa loxo sa tàllal sa loxo ma ñaanal tàllal sa loxo waaw ñam ngay xullee nii lekk Ndiaye man gànd laa de. boo jublu yàlla na fa yàlla yu yu yàlla. merci beaucoup boo jublu yàlla na fa yu yàlla. ba ñaan xaalis yow. dama dama. ayewuñu li ñaan xaalis bu sonn. rek tontu ci teg waat walu ka ah nga lay def yow yeneen kese la. waaw. amal sa fit. Hmm. jaay ka ma jaay waaw parce que daal yow wax naa yow fu ko dem yoon. yaa si yow loolu laa war a def merci. yaa yaa si beaucoup. xay jàppal. jàppal. jàppal jàppal. wala bay bay bay bay. ma fekk gën. yéen foo leen jëlee lii. bul ko lijjanti kaay ñu jaay la ko dañ ma kaa sal ñoo ko moom. léegi yéen ñaata ma koy. 1000F. indi 1000F. 1000F. waaw 1000F nga wax. 1000 waay. plastique yooyu. ceeb la du plastique. ceeb la ceeb bu baax. ok fii kaanu yàlla ko nga yóbbu. kaanu yàlla ko yóbbu ko ko nag. ut ut ko yóbbu. yóbbu ko ko yóbbu. Ah, dawal dawal. waaw jënd moom mënoo ko sokola dégg nga foofu. waaw dégg nga. ok. ma ma xool nga sa taat baaxul de. Eh, salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum. kooku. ah man la. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah sëñ bi ñu ngi si waat. na nga def sant alhamdulilah. mbokk yi. Eh, naka yi tey. mbokk ah, de jëla jëla jëla toog de jëla toog de wa. Dieng la. Dieng Dieng Dieng sant wa. Samb Samb Samb Samb Samb Abdoulaye Samb waarikàlla Samb jeng jeng jeng jeng saala ñu way mbee fi nga dëkk ci koñ bi doo man nag euh, dëkkuma ci koñ bi hmm. waaye daa am euh, association yu may liggéey hmm. ñoo xamante ni ay nit ñu weex lañ maanaam ay nasaraan lañ hmm. ñuy jàppale ñi nga xamante ni euh, maanaam seeni xel matu ma gis ni nag quartier bi ñu dugg sa kër gi xamal nañ ma ni am nga fi ñaar kenn gi sax kenn ki moom moom la waaye keneen ki sax xaw na ki kii tuuti rek. waaw kenn ki dafa diggu dóomi waaw daa dem ba koy nekk te nekk. waaye ñoom la rek. yàlla yàlla fëgg seen bopp. léegi nag ba tax na partenaire yooyu. Hmm. seen yitte yëpp mooy képp koo xamante ni sa xel matul. Hmm. dañ lay jàppale. Hmm. jox la ay koppar. ngir ñu leen si mën di jëndali yére. ndeysaan ñuy solu. ndeysaan parce que ñoom tamit. ci société bi lañ bokk. waaw fekkuma leen fi. Mhm. dinaa la ko jox ndax xam naa ne yaay seen kilifa. incha allah. baax na bëgg naa na nga jàppale leen jëndal leen si ay yére ñuy ñuy sangu ba set. waaw di sol lu set. Mhm. xam ne ñoom si société bi lañ bokk. ay yére daal lañ leen ko jox. ñu jënd si waaw waaw loolu lépp seen yëf la daal. waaw waaw mooy seen taxawaay. ci ci ci ci waaw waaw waaw waaw waaw waaw. baax na jërëjëf bu soobee yàlla. nga ne noo san. Dieng sëñ Dieng. waaw waaw kañ nga fi dellu si. dinaa fi dellu si waat parce que su ma ko joxee. Hmm. dinaa fi ñëwaat xool ba xam li ma waxante ak yow def nga ko wala combien fan ñaata fan. déet mënu ma laa jox jour. waaw loolu suñu borom la soob waaye dinaa fi ñëwaat. Ah, waaw baax na jërëjëf baax na baax na jërëjëf baax na jëng jërëjëf sax baax na jëng jëng maa ngi dem waaw jëng jëng jërëjëf jëng jërëjëf jëng jëng kenn da leen a mën a solo liggéey li koy damay assuré rek ñu lekk ba suuf kenn da leen bu séeréer yoo leen solo ñu xotti ko tooge ko ci suuf fubbale ko di égaat ah kër jàmbur gu ne ñu dem fa di tëb ah di football ci mbedd meeg di def lu kenn xamul ñoom ñoo gone yi am am ñetti at a yam man yére laay xotti di ko di ko yàq di leen solali yére loolu mënuma ko mënuma ko mënuma ko dama koy jënd ay ceeb ak diwlin ak yooyu rek stocké ko fexe lu ma ci génn dépense ba ko ci boutique ba ñu ci topp di rek de loolu daal laa mën waaw fi réew mi xool ngay xotti yére yére kenn du ko lekk yére kenn du ko lekk mu toll nii lu waaye am ceeb ak dëwlin nga koy def akum ndugg waaw waaw fexe noo dunde pour dund ay yére mu toll nii loo teg sa bopp dem teguma wóoruloo ba pare di bëgg lu nooy. pour waaw mais yow da ngaa toog mënuma na maa wala njëganaay. tegal njëganaay dama koy teg nii dama koy teg nii sama kaw. man li nga def ni xangaa la. man dama wóor. ma yow da ngaa soxal lekk tegal njëganaay ma njëganaay. Eh, eh, teguma eh, teguma njëganaay. waaw mais kii dafa soxal de. dafa soxal man maa ngi woon. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw baax na. ñaan ko bàyyi puusal noonu. ñaan ko waaw puusal. puusal puusal puusal puusal. puusal waay puusal waay ay waay bu leen ma rey coow waay. xanaa tey du ngeen dem wëli. dem leen dem leen foofu yi. naaj daa tàng. dem leen foofu yi dem leen foofu. ak moo tàng. julli gee julli nga yow. man julli naa pare. kii moom moom julliwul. julli yooyu moom. ah gëj naa kaa def de. ah ah yow de yow wax. boo bëggee wér nag da ngay julli nga ñaan yàlla mu wéral la ci jàmm. bàyyi bàyyi jàmbur waay bàyyi jàmbur loolu kenn du ko wax. ba nga koy wax kay. da nga koy wax dégg ko waay bàyyi rek loolu kenn du ko wax. kii xam nga moom kii dafa maa soxale dafa maa soxale sama dof gi dafa kaa soxale de. waaw. dof ku koy soxale nit. kii dafa kaa soxale. fak moom man. waaw man laa sëñ Dieng. sëñ Dieng man. waaw Dieng bi ñu ñëwoon fan yii. sëñ Dieng association aide. waaw. xaaral ma ñëw sëñ Dieng maa ngi ñëw. lan la jug de ñëw leen ci biir. dañ koy dóor ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen. jeng jeng jeng jeng jeng egsi jeng jeng jeng jeng ñu ngi fi jeng jeng jeng jeng jeng toogal toogal toogal maa ngi fi jeng maa ngi si jàmm barikalla jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng barikalla indilaa barikalla ah yow de bett nga ma waaw waaw waaw bett nga ma bett nga ma na ngeen def ak koor bi. waaw ñu ngi si kaw na ngeen association bi. waaw ñu ngi ana tubaab yi. ñoo ngi fi ñu ngi avancé bu baax. alhamdulilah alhamdulilah. tubaab yaa ngi fi même ñu ngi bitim réew. am na ñu fi nekk am na ñu nekk bitim réew. Ah. waaw moo tax ñun ñuy ñëw nii pour après ñu mën leen rendre compte quoi. waaw waaw waaw wax leen lu leer. waaw Euh, moo taxoon sax ma ñëw tey. waaw pour xool hmm. xale yi. Hmm. waaw ba xam li ñu waxante woon. waaw waaw waaw ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ah, xale yi ñu fi. dama leen a bëgg a gis. ah waaw hmm. dama leen bëgg gis man maa bëgg ñu toog ma waxtaan ak ñoom am lu ma leen laaj. ah waaw. xale yi ñu fi nag. sëñ bi xam naa ne ñu ngi fi. waaw wan ma leen ma gis leen. Euh, ñaanku. man nu mbéy ñëw leen ñëw leen nuyoon nuyoon teg sëñ Dieng ñëw leen nuyoon teg sëñ Dieng ñëw leen nuyoon teg sëñ Dieng. sëñ Dieng. ça va. ça va. ça va. ça va. ça va bien. ça va bien. ça va bien. ça va bien. toogal toogal toogal toogal. nañ def. ça va bien. gone yi daal a ngi nii. ça va bien. waaw waaw ñu seen nijaay la. seen nijaay ju baax la. ni ngeen sol dafa rafet. merci merci beaucoup. waaw waaw. nañ def. yéen ñaar ku mag. maa ngi ci moom. waaw kii nag maa moom bu ñuy nag maa xam ni mu ne ma dama xooloo ma gars yi noonu lañ toogee ah mu may bàyyi ko muy waaj a ma dool tànk yi mu daanu ma génn après ki la ñëw. ok waaw baax na xam nga. waaw ah. ah. jëf jëf merci merci beaucoup na nga ko waxee woon rek. léegi nag kon il faut mu jël ay photo. Ah, ah, waaw su ma demee waaw waaw. mën koo waaw ko defaral da ngeen di defaru comme ça moo moo photo leen. waaw waaw waaw ñoo niroo de. waaw waaw ñoo niroo de maa ngi seen i jaay wàccal ni photo. ate waay. waaw waay photo day amee lee waay. waaw waaw ate bismillah. dafa doon yow it man nu may wàccal sa kii. Eh, da nga maa sàkkee jox tuwaay. Eh, nijaay da nga maa joxul ah, tuwaay. su ma jox su ma jox tubéy ci euh, euh, micro yi photo a rafet gi hmm? yow li nga ma waxoon waaw lan la yow ma jox la xaalis pour nga jëndal leen ay yére yu bees nga jël yére yi say yére di leen ko jox xoolal yaa niroole kii yére niroole kii tubéy waaw sama niroo sama yére man maay seen nijaay amul benn problème su ma demee dinaa xam li may def yére yu bees baax na merci xaalis loolu ma la yàqal nga la photo bi yow yéen seen làmmiñ mën leen koo téye daal kenn mënu leen a teree wax nu ngeen def wax simi leen sama yére. mais affaire yi nu mu demee nii. waaw da ngeen di simi yére yi rek laa wax. simi leen ah, xaalis bi nag simi leen seen yére fii da nga fay. dégg nga def ñu xaalis bu bari bari pour ñun. waaw waaw ay yére sañse. déedéet ma ne simi leen yére yi laa wax simi leen yére yi. simi leen yére yi. Ah, waaw waaw waaw baax na simi leen yére yi ah. simi leen yére yi. xanaa yéen làmmiñ moom mënu leen koo téye. kër gi da ngay nekk ñun ñuy héberger la yaatal la ba pare nga ñuy dóor. di ñu nax. yow ñu ngay jaay. loolu baaxul. ah loolu ñoo jaay we gore wetiliku gore. ay nit lan comme yow. wa jël foo lu see rek di xool di xool sa bët yi fol ñu yërëm la. waaw oh. loolu. lu tax ñu weeru koor ngay def yii. xool ni muy def gémmiñ bu lu see nii lay def lu seeti na xoolal. parce que yéen a ngi xëy ñii. parce que yéen a ma war a soosa.